coowal mandat kenn du ma ci dégg. Mhm. du ma ko waxoon. Mhm. ñu def ci suñu institution suñu constitution le mandat est de cinq ans renouvelable une fois nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Mhm. mu taxaw fépp ci àdduna foo xam duñ ko ko laaj sax moom Macky fu mu taxaw. naan man président exemple lañ coowal mandat kenn du ma ci dégg. Euh, du ngeen ma falaatee deux mille dix mooy sama second et dernier mandat bind ko ci livre am mais tey jii ay ay ay partisans ñoo ne kàddoom amul solo. est-ce que yéen a yëg fu ma bëgg a waxee. Mm. bu baax. maanaam ñun waxuñu xam nga ñun waxuñu Macky Sall kàddoom amul solo de. Mm-hmm. Mm-hmm. li dangereux mooy ay njabootam. waa Benno Bokk Yaakaar APR ñoo Alliance pour la République ñoo ne Macky Sall kàddoom googu amul solo <laughs> waa léegi comment nag yéen ngeen bëgg kilifa goo xam ne njabootu boppam njabootu boppam xam nga balaa moo njabootee réew mi dafa am njabootu boppam. Mm-hmm. njabootu boppam ñoo ne kàddoom amul solo. ñoom foofu loolu la ñuy wax ci plateau yi maa seetaan Mbaye Ndiaye. Mhm. mu ne kaddu président de la république. Mhm. constitution maanaam du constitution kon mooy wane ni kaddu président amul solo. Mhm. moo tax ma doon wax sama introduction. dafa am valeur ak richesse yu ñu am. muy le respect d'une parole donnée ak gëm ak ngor ak ngar mi ak njàmbaar. parce que as ndox feeñal na sobe mais setalu ko. maay wax yow. ñoo lay déglu itam. as ndox. bàyyi papa. as ah. ndox feeñal na sobe waaye setalu ko. ci lu wér a wér. moo tax léegi ñu naan as gor bu njëkk dañ naan gor ñi mais néew gi gor yi néew moo tax ñu naan as ngor mhm. as mooy nu tuuti moo tax man la as ndox feeñal na sobe waaye seetalu ko waratuñu wax as gor dañoo war a wax gor ñi hmm. kon gor dëgg dañ koo donn mooy respect ci kàddu bu njëkk mayee nañ jànq joo xam ne ndeysaan fa tabaar fa kàlla doonu koy maye mu jooy hmm. daw laxasu hmm. naan no bëgguma kii ñu ne ko sama kàddu bàyyam na ko mani sama kàddu daf maa raw wax nag sama nawle ba noppi. te duma wax war sama nawle. papa kàddu dafa nekk waxuma sax en dehors diine balaa ñuy wax waxu diine sax ñun kàddu dafa nekk suñuy valeur même ceddo yi dañoo amoon kàddu. rawatina kàddu njiitum réew. ndokk yàlla de baax oh, eh, eh, ah. na am na am na waa ju baax ju la siyaare sa pertinent <laughs> na mi ngi lay seddali ñaan yàlla. yàlla yàlla na xam-xam bi rafet xam fit yu rafet na. set na sell na. wallaahi wallaahi. Euh, papi sax ma léegi fan su ko naa la ne. waaw déedéet man yee xanaa sama ginnaaw xanaa bu ma rombee. ayca non yow maa ngi yow mën nañoo bokk lu ne. donc nanu dem <laughs> fa nu nekkoon. Mhm, mooy kon tey suñ nee kàddu Macky Sall wax na na na prix yi wàññeeku. Mhm. prix yi gën a yokku. Mhm. ah mais ba pare ñu ne dañu war a respecter kàddu président kàddoom. ñamu àndal ñoo ne ñu kàddoom jar ta jàpp. ndax ñoo ne tey Macky sàll kat boo waxoon na ne du def troisième mandat waaye ñun dañ koy forcer par force mu def ko ndax kàddoom du constitution. ñu xamal leen ne nag réew mi kàddu daf fee ëpp war a ëpp doole constitution. ndax léegi la signature xew. bu njëkk mag ñi dañ daan xas-xas loo. Lat Joor mu Lat Joor bu dul woon fonk kàddoom munoon naa mucc ci tubaab bi rey ko. ndax sëriñ bu mag mi nee na ko toogal ma defal la li gën. Mhm. gisuma nga dem mu ne ko mu ne ko mu ne ko kajoor ak bawol yépp ak may déglu sama kàddu raw. yow est-ce que fekkee woo yeetaa ak yi taa. mën naa ne say tëstën war naa ko. noppam ak boroom. Mhm. soxlawul nga fekkee jamono yonent yàlla ku dar pour xam li xew. Mhm. xam nga dëgg de na ngeen def nag mu wéyal. donc tey suñu jékkee jékki naan ñu na nañu respecté cadre président parce que waxoon na na prix yokk loolu manipulation la. Macky Sall xam na ni fii ak deux mille vingt quatre Macky Sall mënu fay def lu baax pour askan wi. te amul temps temps moo amul maanaam Macky Sall mën lu mu ñu fi dig imaginez ce pays est une farce ajaratu ce pays est un pays de malentendu Macky Sall war naa def tournée tuddee ko tournée économique di dem ci régions yi di leen dig di leen digaat ñoo xam da nga leen digoon. pendant dix ans li ñu leen di defoo ko nga wëlba mais il nous manipule mais il insulte notre intelligence mais ñii est-ce que moo tax ma naan pouvoir est-ce que nekkul day day wàññi xel non damay laaj quoi est-ce que nekkul nguur day wàññi xel parce que Macky Sall niveau bi mu nekk ñun dañ koo dépassé di dem. Mhm. kon tey na askan wi gën a dëgëraat seen seen takka takkaay gën a dëgëralaat seen biir gën a ñeme waa xiif ndax li des ci li des Macky Sall dafi toog xiif la ñuy nekkee loolu bi yeboo ñu ñeme ko na mel ni que xare ba dar saxaaba yi nañ doon wooree di xare nañ takk seen biir jàpp ni weeru koor yi des ci Macky Sall di fi toog bii bokk naa bokk na ci weeru koor yu mujj dañuy takk suñu biir ndax loolu la fi liggéey Macky Sall suñu PIBC su lu mun a on fait partie les vingt cinq pays les plus pauvres du monde ou bien les pays et les plus corrompus et Dakar est la plus ville la la plus chère ville du monde. yaa ngi jooy de yaa ngi jooy ndakaaru ñu nekk ndakaaru ñu ngi jooy bàjjo nga xam ne ñoo nekk au fond fin du Sénégal. allah akbar est-ce que yéen du ngeen toog ngeen def ngeen def une réflexion ngeen bàyyi xel comme ñun ñu nekk Ndakaar ñooy def gobar jaas mhm. waaw kon ñu nekk biir biir Tamba ci biir wala Sabodala fa or xoolal fa or bay ballee fa mm. ak xiif Sabodala te or ba or ba nga fay ballee réew mu am or ñu toog ci or fi mu toll nii ñu ngi bëgg a exploser seen benn armère ñoom waa Sabodala parce que nee nañ dañ faa gis or <laughs> armère fu néew yi tëdd maay wax ak yow néew yi sax mucc ci nguuru Macky Sall man ngay waxal yàlla na yàlla musal. barki démb armée néew yi mucc ci nguuru Macky Sall. waaw armeeru bétuwaar bi ñu fa ay lacrymogène. Macky na gaaw dem ñu tàggoog moom yàlla baax na a atteint a montré que ni moom lii la mën répression na pekk ñàngal mais développement ak plan émergent kañ nga gëj a dégg ñu wax waxati ko Sénégal émergent déggati nga ñu wax ko. ñoom pouvoir bi sax waxatuñu ko lañ ko gëj a wax. parce que xam nañ ils ont failli xam nañu émergence amu fi. te réew xanaa xamoo màkk boo fa sàccee pour pour pour loo dundee duñ dagg sa loxo. xanaa xamoo loolu. ñàkk sama sama papa mën na maa wax mën na mën na maa seede aaya indi moom dama ko bëgg. ndax moom moom. waaw moom aaya lay indi moom tegal la doo doo doo waxaat. sama papa mën na tëgg sa part sous son contrôle. Mhm. màkk boo fa sàccee ñu def ay investigation xam ne kii xiifa tax mu sàcc kenn du dagg loxoom. xam nga kan la muy waxal. Mm. autorité ba. Omar Omar Omar Ibn Khattab. ndokk xëy mm. bi bi mu yore gi xilaafa yonte bi ndokk nga xam ne bi ministre yëpp seen conseil ministre umra umra ak aj la woon. Mm. ndax da lay bàyyi temps nga liggéey. Mm-hmm. bu waaye ku ne ma laaj ne mu ne waaye yow diw noo ma teg sa population yow côté juge euh, juge noo def mu a diw de jàpp naa ko tëj naa ko rey naa ko mu a ko yee eh, nga ne lan mu ne diw dafa sàcc ma tëj ko mu ne ko lu tax nga ko tëj. mu ne ko budget bi ñu la wootoon lu tax jox ko moom tax muy sàcc boo fi dóorati nit mu duma la la wax. dégg nga ma est-ce que di nga wax ci. Mhm. même Omar ibn Khattab kon nekkati budget bi am na loo xam ne bi boo ci doxoon gor ñi ko moom kenn du jël alal jàmbur. dëgg la koo ko amirul muminin la. waaw mooy njiital jullit ñi. Mhm. moo tax Serigne Touba ak euh, Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam xayrul xalq moo njëkk a nekk un chef de l' xanaa xamoo ne politique bii ñuy bonal. Ah. yonent bi salaasam il était un politicien. il était un chef de l'État. il dirigeait un gouvernement. Hmm. tey bi mu fi jógee ñoom Seydina Omar ñëw eggali mission bi dina Omar ci nguur gu maandu da dox dafa dox ba bis. sa parle sur le contrôle de Oustaz. Hmm. dafa dox ba bis gis kenn ci njabootu Makka ñi mu jiite mu xiif. di togg doom yaa ngay jooy. di baxal ndox. ndox dafa jooy moom Seydina Omar. jël responsabilité ngàdd ko ci loolu xam nee na màkka ak zone bi mu jiitee képp ku fa lekkul responsabilité la. waa nga jiite réew mi. Omar Ngalla mi même pas intal la intal la ko wàcceel si suba sa. ndokk ba pare yenul ko ko indil ko ko. wallaahi yenul ko ko indil ko ko. Mm. lan la ñu jàngale foofu. ci yàlla oh, mooy njiit mooy njiit da war a am yërmande ci ñi nga jiite. njiit da war a xam ni lépp lu askan wi di dund ci lu métti sa responsabilité la. Mm. parce que yaa laaj ñu jox la seen baax pour nga ñoŋalal leen seen dundin. waaye fii loo fi gis koo xam ne day nekk léegi euh, benn étudiant wala mu nekk commerçant wala lu mën a nekk bokk ci benn parti politique yàlla dogal parti ba nekk gañe yàlla dogal ñun fal leen. nga gis ko sa suba sama romb la 4-4 bu yàgg 80. déedéet ko nga baal nga baal damay siif <laughs> damay siif damay ñëwal xam nga maa comme Sénégal ñëpp xam ne Oustaz Diaga ngi nii day waaraate. waaw macha allah. benn benn trasu terrain aw ma ko neel benn. ñun amu kenn am ko fa am terrain. te ñoom ñëpp am na nañu terrain. bourse familiale ñu ngi ko jox lan léegi dootu leen cinq mille cinquante mille la. gis ñu am salaire ba tey ñu am salaire ñu am bourse familiale deux cent mille. ban dëkk la ñu nekk. jël ay oto yu pakk ne jox lenn ci sëriñ si. ak huit huit ak la deux mille litres essence ak salaire te da doo jàngale dara ci daaray alxuraan yi cay yow man xam ëllëg. Hmm. ku fi bàyyi jàngalu yu Seydina Muhammad ak seen maam yi kon kenn Sëriñ Tuubaa. oustaz nga ne safara si nu mu tudd. Oula. Hmm. ay la ilaha. Seexul Xadim Sëriñ Tuubaa. Hmm. sunu sëriñ dafa wax wax ju rëy. mu ne ku jëndee ku ku jaay sa leer jënd ko lëndëm mais Sëriñ Tuubaa xam ko ma ko muy waxal. njabootu boppam lu njëkk a waxal. soo gën ca mbedd ma. ndax doo am lu doo lu toll ko sa maama sëñ Bamba. Mhm. ngay taalibe sëñ Bamba. Mhm. ñàkk koy taalibe ñàkk ko foo dëkk ñàkk ñoo nekkal. Mhm. addina la fekk nga ne yàcc gis ñu tekk ko xam ay médd lañu kon kay jàng sa leer. salaamaaleykum wa rahmatullah. donc ma ñëw rebondir foofu muy waxe ci àddina dama déglu imaam Alioune Badara Ndao mu ne amul benn nitu diine wala yonant bu mu sa ànd ak nguuru àdduna bàyyi askanam. maay wax ak yéen bu waat desee wooma nii la ko waxee ñëpp di dégg te li mu wax da ngay dem introsé ji histoire nga dem Seydina Omar amirul muminin ya chaque jour il était des chefs de l'État moo tax bu ñu toogee fii naan ñu politique gëmul yàlla politique eh, julliwul waxuñu dëgg de dañ noo bëgg a nax dañ naan politique u Machiavel waaye politique u Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nekk au service du peuple politique u Seydina Muhammad nag ñun ñoo gëm alxuraan di ko jàng waaye tubaab yee koy pratiqué ko ngeen baal ma boo demee Chine seen seen député yi amuñu salaire ndax dañ na foofu politique du métier. da ngay dem nga jàng nga nekk enseignant wala nga nekk euh, baara ñinde wala nga loo mën a ne. nga ñëw de porté bénévolement ñëw ne damay ñëw ci assemblée bi pour waxal askan wi. Mhm. kenn du la fay mhm. da ngaa am mhm. amoo benn privilège. suñu réew yi nag moom politique métier la. profession la moo waral ngay gis ni askan wi dañuy gën di ndóol ñoom politiciens yi di gën di alam am alal te bàyyi na gàcce nag gàcce weesuwul. réew mi nga dëkk manqué ñi nga jiite manqué lépp yow nga am lépp déggoo ma de. nga ne ko ñi nga jiite. am na ko nekk ba lépp yow nga am lépp. yàlla yàlla guddal fanam Milano. ba Milano sant sekk la. loolu laa doon wax léegi avec la magie de la technologie le monde est un village planétaire. c'est clair kon kii Milan lay lii Macky Sall mën na ko arrêté. déedéet na noo tee wax ni ñu seen xalaat déedéet mën na noo tee ni ñu wax wax li gëm maa ngi fii toog waa Milan di ma déglu ñoom it ñuy wax di ma jokkalante ñu euh, la wax ak yow ko bokk la te injustice ñu bàyyi woon ko fam ne woon a gënoon moo gënoon seet <laughs> yàlla yàlla guddal seen fan donc yàlla nee na euh. <laughs> du ma bind ci fanweer rey ci fukk ak juróom. dëgg la Ahmed ñu bàyyi woon ko fam ne woon moo gënoon ci ñoom. Mm, moo gënoon rafet waaye bëgg ko bundu xataal noot ko injustice moo jur lii tey. Mm. tey maa ngi ni ñëw di àddu mel ni bool bu daanu. mënuñu ci dara. <laughs> waaye yaa ngi kese kese ngi nag. maa ngi def lu ma neex. Mm. di jafe jafe seen kaw. lii kay dootul benn bool nag. boolu teg la yu daanu la. kon soo nekkee am njiitum réew soo nekkee am njiitum réew ña nga jiite ñàkk lépp. Mm-hmm. yow nga am lépp yaak say ñoñ te avant nga leen di jiite da nga doon miskin nga woon daan luyee askan woowu bu ñu lottee jaaduma nag kon bu ñu nee émergence émergence bi ñoom ñiy exercer pouvoir bi ñoo am émergence mais askan wi amuñu émergence beneen bi ci topp. ki tax nga gën koo warul woon a gën sant ko war na la. waaye nag dañu mépriser nag. ñu kaso mooy suñu kër. wallaay. l'état est fort. Mhm. gouvernement de combat. combat pour les denrées de première nécessité ou bien combat pour traquer les opposants boo xoolee gouvernement de combat bi ñu fi tegoon bañ waxee dañ na combat wu lan la mais boo boo doxalee. Mhm. gis nga ni combat bi pour attaquer seen opposants la loolu lañ gën a def. boo xoolee ñu ngi ñu ngi combattre wuyu le soleil nee na le président presse le gouvernement mu ngi wax gouvernement bi pour ñu. góorgóorlu naa du ko réccu. du ko réccu maa ngi koy nuyu maam Balla. nga ni la soleil lu mu wax yow. nee na le président presse le gouvernement. président kay dafa bëgg gouvernement bi ab waaw presse mooy mu yàkkamti leen. na leen wu nee nañ ah, nañ waax gouvernement est un gouvernement de combat. ñi ñi ñi ñu ngi combattre dans rek. Ah, waaw waaw luy problème bi. il faut de la communication pour une partie politique. pour un parti politique du moins ou bien une mouvance présidentielle Soleil doyu ma seede kii xibaaram bu feebar maa ngi yor doxalal dara maay ay balaa ñuy dem ci deuxième partie émission bi waaw ah. ah bàyyi leen sama confrère yéen ñaan ñi ngeen di jokkalante am njaay joxal jóob réew mi réew mi ëpp dëgg moom ak ñëpp te dëgg yàllaa ko moom fi may ñëwee daaneel Aïcha mooy que Macky Sall kàddoom kenn mënu koo fonk ndax njabootam fonk nu ko kon suñu nee wàññi nañ te wàññiwuñu daf ñuy dëggal rek kàddoom du lu ñuy téye. Mm. ndax lu mu ñu mës a wax 2012 ba tey defu ko. Mm. kon kat kàddu Macky Sall du lu ñuy téye ndax njabootam ñoo ko wax. mooy wax na waaye waxam taxawul. Mm-hmm. ñun li ñu bëgg la ñuy def te kilifa goo nekk sa biir kër nag te mënoo fa am waaw mënoo fa am kàddu kilifa googu ah man kilifa googu man damay introsé man ban façon kilifa te biir APR ci boppam ngay gis nit yoo xamante ñooy taxaw di ko di ko li nga wax. sa kàddu la ne waaye yow la concerné ñun lu ñu bëgg a def la ñuy def mooy da ngay toogaat fi au delà de 2024 kon kàddu Macky Sall mënuñ ko mënuñ ko téye beneen bi stop. Mhm. ñu ne dañuy wàccee mille ñaata jeunes la ñu wax la ñuy kii. mille jeunes mille jeunes. xam nga déjà loolu un état qui ment son peuple où est les où se trouvent les musées ku ko gis. laaj ko na mu ay déedéet man bañ sax ñu woo parce que kii tamit laaj daa laaj rek aji bu sumaare daa laaj rek. ah man de les mille damay ragal boo fi génnee ñu woo. ah maytul de waaw nañ dem rek ndax ñun moom bu demee kaso dem fu ñu miin li ñuy dund moo raw kaso. man de moo demee kaso dem fu ma miin li ma manqué ëpp li ma amut. maadu waaw maay wax kaso la ñuy dund tamay xale bu ndaw am ay compétence waaye te nga xëy sañ sama rafet nii tamit def sa koppati sa sa nuru woo ko ñàkk de fàtte sag sagu sénégalais sa laa ilaha illallah ak ñu bëri sag nag sa damay sagu de laa ilaha réew mu man yow mii wax dëgg li may wax nii ku koy wax am man li nga jot am sax daanaka daanaka yow waaye yow bëreetoo fu mu nekk nii looy dunde man je suis un chef d'entreprise nag mm. euh, depuis man dama mos a jéem a moom sama bopp def nga lu rafet ndax bëgguma di wax ci sama bopp. Mm. dama bëgg dama gës ba gësal man mii la mbër yi la l'Oeil du Tigre njëkk a ñëw sama koñ defal ma li nga xam ne mooy mbër ak métier. si mm-hmm. ga ma dëkk ba ma gis ni zone constru zone à construire la ba ma njëkkee ñëw foofu tabax kër suñu kër papa ba pare mm-hmm. damaa ibbi kenkaayri ca ca ca ca ca place bi. Mm-hmm. 2012 nekk ca di liggéey. nekk ca di liggéey di jaay ciment. télé ñëw foofu ma wane une exemple di bëre di daan di liggéey. war leen ni làmb du métier. loolu yëpp loo gisee ma def ko dama bëgg di moom sama bopp damaa bëgg may am sama liberté d'expression di wax te ku ñu ëmbal sa kersa ëmbal ëmbal sa sunguf ëmbal na sa kersa. waaw ñu ci loolu ma xool zone bi nekk zone en construit waaye am insécurité. ma créé un comité de vigilance avec les lettres des délégués de quartier maa ngi nuyu notable cité APIX yépp ñu jàppale ma ñu teg comme amuñu fa police amuñu gendarmerie benn gendarmerie moo nekk te Sokabeg la nekk dafa sori. te zone ak zone buy seen sànc bu bees day bëri day bëri ñu sant euh, Touré ak nangam mooy ñooñ di jël alal jàmm ñooñu nga xam ne li leen yàlla jox dañ ko xeeb bay sàkk ci wërsëgu jàmbur dafa xawoon a bari ñu créé comité ne pourquoi pas dinañu def dinañ dina nekk dinañ créé dinañ aar suñu réew dëkk waaye dinañ am as tuut lu ñu yóbbu création d' entreprise la. Mhm. ñu teg Kona sécurité muy dox. ñu jóge ci loolu ñu ne déetawaay ñu jóg créer li nga xam ne mooy chaîne bu ñuy wax C'est le bon TV. Mhm. mu nekk une entreprise comme 2A TV bi tey. Mhm.